asalaamaaleykum avant tout maa ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, di wax ne Aïssatou Ndiaye laa tudd man maay chargé de communication mouvement TAB euh, li waxal nag ma ñëw euh, ci mouvement bi mooy que ne avant tout président Babacar nekk na nit koo xamante ne ku baax la nekk na nit koo xamante ne ku baax la il m'a expliqué nag mu wax ma li nga xamante ne moom mooy ambition mu ambition am nag bokk ak man li nga xamante ne conviction ñu maak moom ñu bokk les mêmes convictions en politique mu expliquer ma loolu moom moo waral sama teewaay ci mouvement bi euh, may am yaakaar ne bu baax nag euh, d'après les études yi nga xamante ne moom laa jàng muy communication je ferai le maximum pour améliorer li nga xamante ne moom mooy communication euh, mouvement bi incha allah je ferai le maximum. mouvement tab nag buñ ko déggee mooy mouvement boo xamante ni naam mën nañoo wax ni ba mu juddoo yàggul waaye depuis ba mu soq soqee ko gis nañ ni. dëkk euh, nekk na mouvement boo xamante ni tey jii mën nañ la wax ni au niveau national bu jógee si ki nga xamante nii nag mooy chargé de la communication mouvement tabb derrière Pape Siré Dia jox ki nga xamante nii tamit muy membre la si biir mouvement bi mi ki nga xamante nii mooy Maye Sène Maye Sène moo occupé poste adjointe trésorière kon Maye Sène asalaamaaleykum waa Thiès asalaamaaleykum waa mouvement bi kon asalaamaaleykum aussi adduna bi di leen xamal ne leen euh, su ngeen ñu posé question pour ñu wax ci mouvement TAP ñun dañ ciy kontaan ndax bu ñuy wax ci mouvement TAP dinañu mën a profité wax ci suñu président DG Siré Dia ñu leen di xamal ne leen ñun dañoo nekk ay jeunes yoo xam ni ku mel ni man maa ngi jóge ba Ziguinchor ñëw fii Thiès mais lu ma fi gis ci solidarité ak ci action sociale gisuma ko fi ma jógee ndax ñëw naa Thiès gis fi DG Siré di fi def loo xam ne nii car macha allah yàlla rek moo ko mën a fay mais sant yàlla di sant ki nga xam ne moo tax ma xam Babacar Diallo mi tax ma xam tey Siré ndax Siré xam nañ ko ci lu rafet xam nañ ko ci lu logique xam nañ ko ci loo xam ne day jëmale Thiès gi kanam kon képp koo xam ne yaa ngi ci biir Thiès te bëgg Thiès jëm kanam bëgg Sénégal jëm kanam war ngaa mën a jàppale ak ñu mu àndal ndax ñu mën a fal suñu président ndax ñu mën a fal suñu président Macky Sall en 2019 ndax Sénégal képp ku bëgg mu jëm kanam rek di ngi mën a jàpp si ginnaaw Siré ndax ñu mën a avancé ndax actuellement nii gars yaa ngi xeex di kaas ndax suñu jeunes yi nga xam ne toogatuñu Sénégal koo fi gis rek immigration clandestine lay gis pour mën a jàppale ay waajuram te moom tey mun nañu biir mun nañ ne biir Thiès mu ngi fiy xeex émission clandestine ndax kër goo dugg bu ne bu fa jëlul ñaari nit jël na fa kenn nit yóbbu ko mu utal ko fu mu wékkan fu mu foraatoo indi ay waajuram te wajur yi ñi ngi dolli ñaan di ñaanal Siré bu baaxa baaxa baax ak ñoom Babacar Diallo yi nga xam ne ñoo nekk seen ginnaaw di leen jàppale ndax ñoom suñ ko yàqoon mu ñaaw mais yàquñu si dara ndax di nga am parfois nekk leader toog ci kanam di góorgóorlu mi mais ñi sa ginnaaw bu ñu liggéeyul du dem kon ñoom ñi si ginnaaw ñoo nekk di liggéey moo tax waa Thiès gis si avantage gis si résultat di ñaan rek euh, autorité yi nga xam ne ñoo nekk Thiès ak képp ku munti doon te nga bëgg avancement wu Thiès ñu ngi lay euh, woo ci sunu assemblée générale bi ñu am la quinze septembre war ko defee fii Grand Thiès ñëpp nañ si ñëw teew ku ci nekk nga dugal si sa loxo Thiès jëm kanam Sénégal jëm kanam. fépp foo munti dem rek foo xam ni sociale lalu na fa rek fekk nga fa loxo loxo Siré kon ñu koy ñaanal bu wér di ko xamal ni ko ñun waa jeune Thiès. kili sunuy kilifa sunuy yaay sunuy papa sunuy mag sunuy rakk te ñu nekk biir Thiès yor seen carte électeur war a voté en 2019 ñoom ñëpp topp nañ ci ginnaaw président Macky Sall pour voter ko en 2019 fal ko président de la République incha allah. na leer na yaakaar naa ne tey jii mouvement tabu li nga xamante nii mooy facteur bi nga xamante ni ci lay jëkk a dox tey jii boolee Siré xam nañ ni ñëpp. dans Thiès il est l'homme politique incontournable fii si biir Thiès tey jii boole Pape Siré Dia dañ naan euh, nekk na nit koo xamante ne ni mi ngi dox si social ànd ak yoo xamante ni mooy di bras droit am mooy confi confident am di homme de confiance am ànd seeg Babacar Diallo jox Babacar Diallo léegi yoo xamante nii ne ko liggéeyal ma Babacar Diallo tamit am ambition yooyu ne dinaa la liggéeyal fi nga xamante nii falaa dëkk fi mu dëkk moo di Thiès os ku nekk Thiès Ouest ku dégg Thiès Ouest tamit xam na ay leader la ko bokkal kon tey jii bu jëlee engagement am ne tey jii créer mouvement bi dool njiit la di dox ci loo xamante nii mooy réélire son excellence président Macky Sall au premier tour au soir du 29 euh, février tey jii ñu nekk ak waa mouvement tabb fas yéene jox kàddu gi ki nga xamante ni moy ndey mari moy secrétaire général euh commission administrative ndey mari nuyu ko si nek si turam ak santam di len remercier bu baakha baax si sen présence tay ndax té yombul nit def déplacement mais da ngeen bàyyi lu ngeen jàppoon yépp ñew wuy suñu ma tax na ñu ngi leen di remercier bu baax man nak ma ngi tuddu ndey mari cham ma nek secrétaire administrative bu mouvement TAB. mouvement tab nag boo gisee lu tax ñu créé ko lenn dong la parce que fii ku ñeme dañ laa dee te ñun koo gis fii dañ koo tab président Macky Sall dañ koo tab ba tax ñun ñu tab ki nga xamante ne bii nii moom la Thiessois def seen choix tuddee ko le Siré Dia monsieur Siré Dia le choix des Thiessois Siré Thiessois yi ñoo ko jël Thiessois yi ñoo ko jël fal ko parce que dañu am ci moom yaakaar ñu gis ko nag muy liggéey di œuvrer ci social mi ngi ci lépp kon nag te nit ñi kenn moomu leen lenn rek lañu am nga jël sa alal di ko def ci ñoom koo ko jox koo ko defal mu topp la bés soxlaa soxlaawee gis ko. ba tax na nag ñun ñu ngi nekk ci ginnaawam jàppale ko ndax lu tax ñu nekk ci ginnaawam tamit lenn dong la dañu wóolu ki ñuy àndal muy monsieur Babacar Diallo mu nekk nit boo xamante ne bii nii un homme humble un homme respectueux un homme travailleur. nit nit boo xamante ni monsieur Babacar Diallo nekk nit boo xamante ni bii nii bu ma yeboo cees dañ koo teg loxo Thiès ñoo ko teg loxo parce que tamit foo dem nitu nit ñi la foo dem am na fa représentant li mu yor ci mbooloo macha allah yàlla bu ko ca jiitu ba tax na ba tax na loolu moo tax loolu moo tax liggéey bi nga xamante ni bii ni monsieur Babacar Diallo mi ngi koy liggéey ci Thiès Siré Dia jël ko def ko homme de confiance am def ko bras droit ñun suñu yeboo ni monsieur Babacar Diallo mooy lenge si raja waa ñun daal ñu ngi leen di te di wax monsieur Siré Dia bu tëddee ginnaawam bandam ndax ñun ki ñu àndal dañ koo wóolu monsieur si Dia na xam ne fu nekk am na fa représentant ñun ñoo ko représentant Thiès ñoo ko représenté te record bi incha allah dañ koy battre élire le président Macky Sall dès le premier tour avec monsieur Babacar Diallo na appel rek. ñu du leen invité suñu réunion boo xamante ni bii ñu réunion générale la ñu ngi ciy woo. képp koo xamante ni bii ni yaa ngi dégg turu mouvement tamba tamba rek na nga xam ne yaa ngi ci biir réunion bi convoqué nañ la le 15 septembre boobu di soxla yéen ñëpp seen aide ak seen présence te ku ci nekk tamit nga xëccaale sa mbooloo ma nga nekk ci sa ginnaaw parce que ñun moom bu dee mbooloo macha allah am nañ ko te dañuy gën a yëg ci kanam kon nag na ci ñëpp jàpp bari ko ci mbàttal a buux mu di wax aussi ci tour mouvement bi nga xam ne moom lañu am muy mouvement tabb ànd ceeg suñu directeur euh, suñu président Babacar Diallo di wax ni aussi comme niñ ko sama gars yi waxee fii mën naa ne ku fi képp ku fi dem dañ laa tabb te tabb boobu aussi moom la ñu bëgg mouvement bi nga xam ne moom la ñuy lancé te ñu tuddee ko ko waa du ma ni sax waa Thiès mais waa Sénégal yu ñëw ànd ceeg ñun te kiñ koy àndal mu ngi nekk mooy le euh, directeur général de la poste monsieur Pape Siré képp ku dëkk cees wala ngay doomi Thiès war ngaa xam li nga xam ne moom lay liggéey ci biir dëkk bi ndax koñ bu ci nekk am na fa koo xam ne tey même bu dul sa doom la muy sa rakk wala muy sa jarbaat jël na ko ci dëkk ba te tamit yaa ngi ci jàppale tamit say waajur ñu ànd ceeg aussi suñu président Babacar Diallo moom mi nga xam ni euh, Thiès rek mën naa ni moo ko ñor te comme ni ñu ko waxee sànq fi mu dëkk mi ngi fa dëkk ak ay ñooñam ñi nga xam ne ñoom la bokkal Thiès Ouest maanaam ay leader yoo xam ne nii ña nga fa te tamit mën naa ni wóolu nañ ko ci côté boobu ñu ngi ciy ànd ak moom daal di bëgg ñu ànd ci liggéey bi di leen woo aussi ci suñu programme bi nga xam ne am nañ ko le 15 incha allah muy suñu lancement mouvement bi ñëpp ñëw ànd ci jàpp ci incha allah Sénégal jëm tamit. waaw salaamaaleykum waa Thiès salaamaaleykum Thiès waa yëpp maa ngi nuyu képp ku fi nekk du nuyu le DG Pape Siré Dia di nuyu encore une fois notre responsable monsieur Babacar jàll di ñëw tey ci objet réunion bi ñu amoon tey fii ci Chez Jaraaf euh, waa mouvement tab amaloon ko tey euh, ñu ñëwoon ci élargissement bureau mouvement tab xam ngeen ni tab mouvement boo xam ne tey jii mi ngi regroupé plus de 500 personnes au niveau national tey jii man mii di doon coordonnateur bi di coordonnateur ak euh, représentant zone yi ngeen ne xam ni ñoo nekk ba Touba ba Sébikotane tey ñu amaloon benn réunion pour élargir suñu bureau lépp pour waajal suñu journée bi am le 15 pour préparer suñu lancement mouvement pour ñëw ci préparation bi euh, ñi ngi sollicité di invité ñëpp képp koo xam ne tey jii moo mouvement bi doon membre mu invité à seen kër wala famille maximum 9 à 10 personnes nous représentent, pour ñu Je lancer ce mouvement man défi rek lay lancé sama bop muy lan ba ginaaw Babacar Diallo lancer défi ni day gagner bureau fi nga moy Aliba Idrissa ko ak euh, maître Alassane au niveau de man nga représentant dinaa gagné inshallah allahu rabbi bureau jox ko président Macky Sall jox ko le DG Pape Siré Dia parce que xamnañ le DG Pape Siré Dia résultat yi mu def ci bir Ceesuwaay parce que mi ngi jàppale jeunes yi ci walum liggéey emploi des jeunes di ngi ñew ci hôpitaux yi comme niñ ko waxé mi ngi ñew ci jàkka yi mi ngi ñew ci jumaa yi di dugal loxom kon nit koku nit koku war nañ ko jàppale vu ak résultat ci ginnaawam Babacar Diallo ñew un homme social un homme de terrain nek fi di jàppale jeunesse yi jeunesse bi ñu ñi ñun nek ci tay. Nek ci and ak mom di liggéey moo tax ñu sommes ko président mouvement pour lan lépp lu ñu song tey dañ koy daan dañ rabbi élection yi ñi nga engagé les jeunes avec derrière Pape le mouvement tab coiffé par le président M. Babacar Diallo, Inch'Allah au Rabin, le président Macky Sall dina gagner au premier tour. Je vous remercie. le kóllëre ci teewaay bi tay dañ fi ñëwoon pour daf ben réunion fii ci restaurant Jaraf. par rapport ak sunu mouvement bi ñu créé yàgg nañ see dox nag boobu ba tey ñu ngi ciy dox mais tey dañ doon daf ben réunion pour élargir sunu bureau yaakaar naa nag fii kenn ñëw fi pour tànku tricher ñu fi nekk ñëpp ils sont engagés ndax Siré franchement Thiès mérite de choisir Siré pour nous diriger fii parce que amul amul politi politicien bu nekk mun mënoon nga ne sama koñ laay sama waa koñ laay jàppale mais tey Thiès doo dugg si benn koñ boo xamante ni Siré ja jëlu fa nit muy liggéey poste man am naa sama xarit yoo xamante ni ñu ngi ba dakaar Siré Dia dugal na leen ba poste donc loolu du choix bu du c'est pas du n'importe quoi le le fait que président Macky Sall choisir Siré Dia pour mu diriger Thiès si kaw loolu ñun tamit sunu mouvement bi sunu mouvement bi bëgg nañu mu jëm sa kanam te incha allah dina jëm si kanam ndax boobu ba tey ñu ngi siy dox dem nañu fu ne nag dem nañu fu ne lancé mouvement bi ànd ak sunu président Babacar Diallo waaw moom tamit muy dox si social bu bëri. c'est pas pour rien président Macky Sall ne 2018 mu nekk année sociale te ku dëkk Thiès si boppam xam nga ni président Macky Sall kii. monsieur Sereja DG Poste et monsieur Babacar Diallo ñu ñu ngi œuvrer social pour bu baax bu baaxa baax donc amna ñu ñortu ni président Macky Sall dina gagné au soir au soir du 24 février 2019 ci élection au premier tour. merci Pape ma ngi leen di nuyu ma ngi nuyu euh, mbolo mi nga xamni tay tey ñoo fi ñëpp muy association muy mouvement muy mouvement national buma nexé représentant représentante région département secteur amul ben ko xamni tewna fi tay te nuyuuma la di nuyu au passage même ñi nga xam ni ñëwuñu te amoon nañu yéene ñëw woote nañu téléphone nañu wax seen empêchement di wax ni ñi ngi xaar ba bis bi nga xam ni moom la ñu tànn ku ci nekk maa ngi lay nuyu di nuyu région yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ñëpp waaye di nuyu surtout commune bi tey jii Diamaguène Sampaté Hersent Cité Senghor Cité Lamine Cité Niax Madina Fall Somme, Dakar 2, Darussalam, Mbour 3, Mbour 4, HLM Chali Mbambara, Marikere, Cité Ouvrière, Djamagan, Kausara, Parcelle Asseni, Lazare, Grand Concorde Moussante, 10e, HLM, jaxaaw ngent aussi kër Cheikh a Balla ñu ngi nuyu taaxu waa taaxi kaw aussi du nuyu waa Sampaate du nuyu waa fayu un fayu deux te Lamine donc Pape ñu ngi nuyu même aussi waa cité ouvrière di nuyu waa Balabe di nuyu aussi mënuma lim ñi fi nekk ñëpp ndax suma ma limee it yaakaar naa ni tout Thiès ñi ngi fi tey jii ñëpp a ngi fi. kon ñooñ fi ñëpp nekk tey ji ñu jël ndombo tànk takkal ma ko maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di wax ni waaye di jël cant boobu yëpp di ko teg ci ki nga xam ni mooy loxo ki nga xam ni kenn dootu ko présenté kenn ci biir Thiès ki nga xam ni kenn dootul wax kenn ay waxam te boo ko woo ko ci ki nga xam ni amul benn lettre booy bind Thiès bind ci def ci cas social posté ko envoyé ko ku ko ubbi rek sa xel ci kan lay dem ci la DG Siré Dia donc kooku tey jox naa ko message bi fas yéene moom it mu jël jox ko ki nga xam ni tey gis nañu ni pont wu Gàmbi bi ubbi nañ ko gis nañu ni arène bi ubbi nañ ko gis nañu ni forage yi gën na ko dolli gis nañu ni tey jii aéroport jas bi ubbi na ko gis nañu aussi autoroute bi Dakar ila Touba bi ubbi nañ ko gis nañu ni aussi Diamniadio kazalika la même chose gis nañu lycée yi nga xam ne tey jii mi ngi koy tabax sapor yi nga xam ne tey mi ngi koy tabax université yi nga xam ne moom mi ngi koy tabax gis nañu aussi stade Lat Dior bii nga xam ni ñun ñoo dëkk Thiès soxla ko namm ko loolu tey jii mi ngi koy defar kooku ku ko tudd ci kenn rek la sa xel di dem muy son excellence le président Macky Sall. kon tey jàpp nañu ni ñun ñëpp jël nañu engagement ci yéen ñi dëkk ci région yi ci yéen ñi dëkk ci département bi ci yéen ñi dëkk ci gox yi. ci une ñi ci cité ci nga engagement le directeur général de la poste monsieur Pape monsieur Pape Siraja, ko ko ñor social moo ñor Thiès ñor département Thiès ñor commune de Thiès moo ñor monsieur Pape Siraja, amul leneen loo xam ñor Thiès may question bu importance de wax par rapport bu dara gis

amna question yo xamni duma nagoti ben journaliste di ci poser question journaliste bo may poser question dag may poser question di wax lan moy ambition Siré ci bir ties lan moy ambition le mouvement tab ci bir ties ak lan moy aussi ambition ñi nga xam le président Macky Sall n'ek nekk Thiès di nek ñi nga xam ay responsable politique lañu man yooyu moma ñor mais sama yon ñorul ma ci kenen ko xamni dafa jugee di ñew Grand Thiès parce que bo me poser question ci marché Grand Thiès li fa am bi passé du ci tontu parce que l'ol du buzz loolu du wax fi ku bëgg buzz wala ga bëgg siw dafa am fenen foo koy jaarale mais doo ko jaarale ci fofu parce que Siré couvrir na Thiès jël na Thiès limu fi def nako amna nak ñu mu neex pourquoi parce que amna ño xam dañu bëgg lu baax te ku bëgg lu baax ku ne di nga ñëmé li fi def man neena naa du ma ci gannaaw kenn di dem ak di daw waye nangu topp ci ginnaaw mouvement tabb mu diriger ma ma ànd ak Siré Dia topp ci ginnaawam di daw man nangu naa loolu nangu naa loolu na nañu waxante dëgg yéen ñii fi nekk ñëpp yi ay responsable ngeen ñenn ñi fi nekk ku ci nekk yaa ngi yor tey jii sa bac plus 3 bac plus 4 ñii ñi nga am seen BTS commerce international ñii ñi nga am seen licence 1 2 3 ñii ñi nga am seen maitrise ñii ñi nga am seen ñii ñi ngi nekk en communication kenn amu fi koo xam ni nekk na fi tey ji amoo fi ndombo tànk nekk ci biir gox bi wala nekk ci biir département bi wala nekk ci biir région bi wala nekk ci biir réew mi kon yéen ñii bu ngeen duggee ñëw ànd ci mouvement tabbu fas yéene ànd ak le DG Siré Dia naxul leen ko parce que mun leen ko nax ndax vous tous vous êtes des intellectuels kon tey mën naa jàpp ni li nga xam ne moom ngeen mbébét fas yéene ko ci biir Thiès fas yéene ko ci biir département bi fas yéene ko ci biir commune bi fas yéene ko ci biir gox bi fas yéene ko ci seen biir koñ fas yéene ko ci seen biir centre gëm naa ni engagement boobu ngeen jël mokk na mokk na ñor ñor na xom it loolu kon tey su ngeen jëlee engagement ñëw fal ma teg ma fii ne ma man maa leen di jiite

ci kan pour derrière Siré pour kan pour son excellence président Macky Sall kon tay engagement bobu ngeen xamni mo moom ngeen jël tay gi man ma ci ñëk and ak yéen pour jël ko kon japp na ni ma ngi lancé appel du au nom du gouvernement au nom du président Macky Sall wayé au nom du aussi du directeur général de la poste monsieur Pape Siré Kani que ñi nga xamni ni yéen nekk ci mouvement tab jël ngeen engagement pour fas yéene def seen première réunion bo xam da ngeen ko élargir amul benn région boo xam dina ñëw du ñàkk ñëw ci réunion bi amul benn secteur boo xam du ñàkk ñëw ci réunion bi il paraît que invité ngeen ñii di avec yi ñii di mouvement yi ñii di mouvement de soutien yi ñii di aussi association yi ñii di aussi euh, liggéeykat yi ñii di ñeneen ak ñeneen ak ñeneen seen waa kër yi. kenn ku nekk jël ngeen initiative pour lan invité leen ñu ñëw ci première réunion bi la quinze fan ci Grand kon jàpp naa ni le DG si Dia am naa yaakaar ni moom su ko fekkee moom ci boppam dina ñëwal boppam ndax moom yéen a ko ñor moom xam na ni yéen a ko ñor te it moom xam na ni man maa ko ñor ndax. engagement bi nga xam ne moom la ma sant ci sama fief muy école Aliba di école Thierno Ilimane sal di école di dispensaire ba parce que foofu ànd nañ ko ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jonganteel te ñañ ko war a jonganteel ñan lañu mooy ñi nga xam ni tey jii bañ fi yore ndomba tànk suñu borom joxuñu leen ndomba tànk waaye defuñu fi loo xam ne moom la fi Siré Dia def kon tey mën naa jàpp ni foofu. am nañu engagement boo xam ni mën nañ ko jël gañe ko ci ay responsabilités yu am solo ndax tout Grand Thiès ànd nañ ci pour fas yéene jël seen engagement ni ren ni ñu fa leen daan def bu njëkk kenn du leen fa def ndax lan parce que gis nañu président Macky Sall liggéey bi nga xam ni mi ngi koy liggéey biir Thiès mi ngi koy liggéey ci àdduna bi mi ngi koy liggéey Sénégal ndax président Macky ku ko dégg tey jii bourse yi xoolal trois mois ngay toog nga dem fayeku faj sa soxla loolu kan moko fi def amul ben président bu fi ñoo def ko fi kon tay ànd ak Macky Sall ànd ak DG Siré suñu ndam la suñu honorité la teyit la nañ ci ak à 100 pour cent di ñaan ni le 24 février inshallah taala ñu fassiyene yéene ak DG élection yi en premier tour au premier tour ci deux mille dix neuf bi incha allahu taala kon mouvement tab maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di feddaliwaat sama kóolër ci yéen maa ngi nuyu it ñi nga xam ni mooy invité yi di nuyu surtout. particulièrement aussi restaurant Kër Jaraaf bi nga xam ne tey jii ñoom ñoo ñëw ànd ak ñun defal ñu lu ñu defal nañu jël leen fii ngeen def ko seen fief saa yu ngeen fi bëggee réunion ñoo ngeen réunion ndax ki ka jar moo ko jar te le DG Sira Dia jar na ko kon maa ngi leen nuyu maa ngi leen masow di leen ñaan ku ci nekk nga delluwaat ci sa sago ku ci nekk nga ñibbiwaat te bu la dara jot